Cheikh Sadibou Diop maa ngi lay nuyu. maa ngi di la fay madame Ngom. yow yaay coordonnateur au mouvement alerte ñu am mbégte dalal tey ci plateau matinal mi FM war a waxtaanee euh, lu bari euh, li ci gën a fës bokk ci euh, activiste yi rawatina ak waa mouvement ñëw lank ñan ci ñoom ñu teg leen loxo ana ñan la ñu jàpp luñ leen di toppee tey ak ci yan condition la ñu nekk ndax xam nañu ni par exemple démb dimanche yaa ngi woon ci seen wet. waaw maa ngi lay gërëm di la sant madame invitation bi ndax euh, réew mi FM rajo la boo xam ni am nañ solo trop ci réew mi waaw dimanche démb ñi samedi lañ ko tàmbale mhm. taxawu ñi nga xam ni euh, yoon daf leen teg loxo mhm. euh, dimanche démb ñu delluwaat central waaye li ñuy mën a wax mooy na sénégalais yépp jàpp ni fukki doomu sénégal ak juróom benn ñoo nekk ci loxo nguuru Macky Sall. te lenn laa wax. lenn lalu ko lu dul jaay doole ndax ay ndaw lañu yoo xam ni Sénégal dong nga leen ñor Sénégal rek leen tax a jóg ñu jógoon jël ay këyit bind ci bataaxal. Mm. bataaxal boobu ñu doon wax doomu Sénégal yi ni yokk bi ñu yokk courant bi cher na cher boo xam ni ñun ñëpp dañoo war a ànd ci yar. Mm. ci teggin ci jàmm pour wax nguuru Macky Sall nañ ci dellu ginnaaw ndax gafa doomu Sénégal yi attanuñu ko ndax ndool bi nga xam ni xam nañ ni dafa wërngal képp réewum Sénégal waaye ba ñu jógee di ko def takk der yi maanaam waa police jóg dem jàpp leen waaye bañ jàpp giñ leen jàpp nag nañu xam ni ndaw yooyu lañ doon def sartu ndeyu réew mi maanaam li nasaraan di wooye constitution moo leen may droit pour ñu def loolu kon takk der lu ñu def teguñu ko fenn lu dul ci jaay doole pour xoqatal ñi nga xam ni ñoo jóg ngir artu leen wax leen ni yokkute courant bi cher na te loolu kenn du ko fi nangu may fàttaliku ni ndaw yooyu nekk ñoo lank mhm. bokkuñu ci benn parti politique mhm. ànduñu ak benn njiit ci politique ñoom askan bi deng moo leen tax a jóg ndax courant bi cher na te xam nañ ni réew mi àttanuñu ko waa askanu Sénégal àttanuñu ko loolu taxoon leen jóg nag moo tax ma Macky Sall ne du fi amee di koqalaate di jaay doole ñu koy ñaawlu lool di ci ànd ak kuréel yu bari nag. Mhm. wax nga léegi ne ànduñu benn njiitu politique waaye gis nañu par exemple yenn euh, responsable politique yi maître mel ni maître Abdoulaye Wade Ousmane Sonko ak ñooñu wane seen jàppale jëme ci mouvement bi ndax yaakaaroon ni loolu euh, moo tax xëy na nguur gi euh, tàmbali doxalee nii. waaw xam nga xeex boo xam ni xeexu courant la ay ndaw yu bokkul ci benn kuréel politique. Hmm. ma koy baamtuwaat. dam mhm. seeti Ablaye Wade dam seeti Ousmane Sonko pour ñu ñëw jàpp ci xeex bi mhm. waaye bañ leen demee seeti ñooñu manifestation bi passé donte jël nañu seen alal Ousmane Sonko ñaar fukki junni la joxe mhm. Ablaye Wade président Ablaye du jox euh, joxe sept cent mille francs CFA euh, loolu du lenn loo xam ni dina indi gàkk-gàkk ci xeex bi nga xam ni ndaw yooyu moom la ñu jóg pour xeex ndax loolu kuréel bu mel ni alerte sax munoon na ko jël joxe ko te may fàttali ndaw yooyu bokk kuréelu ñoolan mhm. bés bu nekk dañuy cotiser pour def manifestation waaye yoon la rek mhm. pour xeex bi mhm. ñëpp jàpp ji parce que xeexu citoyens yi la du xeexu politiciens yi yoon la ñu dem seeti président Abdoulaye Wade yoon la ñu dem seeti Ousmane Sonko waaye ñooñu bañ leen seetee li tubaab di wax soutien symbolique maanaam dañu ñëw rek pour wane ni jàppale nañ leen ci xeex bi waaye kenn ngeen ñu jéeg communiqué pour wax seeni militant wala seeni ñoñ wala seeni àndandoo ñu ñëw fekk si ñoo lànk loolu lay wax du président Ousmane Sonko kon maanaam soutien symbolique rek la loolu mënul indi benn gàkk-gàkk ci xeex bi nga xam ni ay ndaw yoo xam ni li leen ñor rek mooy njëriñu réew mi ñoo jóg lànk ko ngir wax nguuru président Macky Sall ñu dellu ginnaaw ci li nga xam ni mooy seeraayu facture courant bi. Hmm. est-ce que xeex bi tamit yaakaaroo ni euh, lu ngeen ñàkk ba pare la ndax euh, gis nañu bañ commencé ba léegi ñu wàññoo lank déjà euh, yëf yi changé wul. waaw xeex bi madame Ngom lu tax ñàkkuñu ko te duñu ko ñàkk. Hmm. mooy tey képp kuy sénégalais xam nga ni lii nguuru Macky Sall def ci yokk courant bi. waa Sénélec bu ñu doonee ay cuune ba jàpp alalu réew mi alalu Sénélec pasar pasaree ko bëgg tey dellu ci ci askan bi pour askan bi génn seen gafa bagg seen yaram génne seen deret pour jox ko waa Sénélec pour ñoom ñu am alal loolu sénégalais yi nanguñu ko te sénégalais yi comprendre nañ ko ndax ñoo lànk dans ci communication am leeral na loolu ba mu leer nañ hmm. que du mbirum politique tey du mbirum politique ëllëg te du musa nekk mbirum politique dañoo jóg pour wax ci yokkute courant bi te askan bi ànd na ci ñun boo gisee junni junni nit ñiy génn di ñëw ci manifestation yi te bokkuñu benn parti politique benn parti politique yëkkatiwu leen waaye ñoo lank ñoo leen yëkkati. Hmm. ndax xam nañ ni ñoo lànk seen kàddu yëpp jëmalewuñu ko ci lenn lu dul. njëriñu askan bi hmm. jëmalewu ñu ko ci lenn lu dul xeex pour ñu bañ a laal gafa askan bi jëmalewu ñu ko ci lenn lu dul xeex pour ndóol bi nga xam ni am na ci réew mi dañ fi jëmalewu ñu ko ci lenn pour lu dul wax président Macky Sall mu xam ni yokkum courant bi kenn du ko nangu tey kenn du ko nangu ëllëg te incha allahu rabbi waa ñoo lank ak sénégalais yu jóg yëpp ànd seeg ñoom dinañ ci am ndam bu rëy a rëy. bokk ci mouvement alerte mi leen di jàppale ñu wax ci tolluwaayu réew mi tey noo ko gisee ci tënk. waaw tolluwaayu réew mi man bokkuma ci ñin ñoo xam ni dañuy xëy di ne Macky Sall defu fi dara. Hmm. am na lu mu def ci mbirum tabax. Hmm. donte nag njëkk li njëgu tabax googu. Hmm. nit ñi ñu ngi ciy laam-laamee loo xam ni dafa mel ni ger moo ko lal. boo gisee prix terre bi nga xam ni nit ñi ñaaw nañ ci njort. Mhm. boo gisee tey stade yi ñuy tabax nga xam ni nit ñi ñaaw nañ ci njort centre conférence jam ñaajo nit ñi ñaaw nañ ñaaw nañ ci njort aéroport ba ci aéroport AIBD bi ak autoroute yi ñuy def yëpp dafa mel ni guerre moo ko lal kon Macky Sall ci wàllum tabax am na jéego bu mu def waaye de bu ñu doon set ci li mu liggéey yëpp Macky Sall li mu def bu ñu ko doon xayma ci diggante benn ak fukk mun nañ wax ni ñaar la ci tàmbali jekkali ko ci loo xam ne ñun ñi mun nañ ko ci sant gërëm ko ci. Mm. kon maanaam bu nekkoon dafa nar a jàll examen. Mm. Macky sàll dafa ndërmeelu. Mm. lu mun a am lijaasa bañ koy laaj. ndax boo seetloo ger bëri na ci réew mi ba nga xam ni kenn xamatul réew mi lu muy ndural. boo seetloo ñi bokk ci moom dong ay goroom ay mbokkam. ay xaritam ñoo ñànk réew mi di ci def lépp lu leen neex boo seetloo li nga xam ni mooy yoon yoon bi fi nekk dafa nekk yoonu kumbaam ndey ak kumbaamul ndey boo seetloo ci mbay mi nit ñi bay nañu seen gerte ba pare xamuñu fuñ koy jëndee ñu ne déet ña waroon jënd gerte ba sax muy Sonacos léegi commencé nañu di dàq ay liggéeykat boo boo seetloo tey këru liggéeyukaay yi fi nekk li nasaraan di wooye entreprise mm. yi nga xam ni ñoom bokkuñu ci nguur gi secteur privé la ñu fekk mm. ñoom ñëpp ñi ngi jooy li tax ñuy jooy mooy liggéey bi ñu leen waroon jox dañ ko jël jox ko ay doomu bitim réew ñu ciy njëriñoo te loolu day nasaxal koom-koomu réew mi ay nasaxal këru liggéeyukaay yooyu nga xam ni ay doomu réew mi ñoo ko moom mm. sanc ko daf ci seen xaalis maanaam secteur privé bi national bi Macky Sall ndóol ndóol na leen toroxal na leen jaay na leen doole jël lépp li ñu waroon liggéey jox ko ay entreprise yoo xam ni bitim réew la ñu nekk muy loo xam ni dafa ñaaw. Mhm. kon réew mi maanaam bu ñu ko saytoo càmbar ko mun nañu wax ànd ak dal ni que réew mi maanaam du ma wax dara doxu fi mais fi dox bariwul. maywul baax na ñu waxtaan ba tey euh, ci euh, réew mi ak lu ko soxal euh, ay jamono yëkkati woon ngeen fi weneen xeex jëm ci bëgg lépp leer ci pétrole beeg gaz bi ana fu ngeen ci toll yéen waa Petrotim di kuréel gi ngeen taxawaloon. waaw Petrotim moom mi ngi ba tey muy ay ndaw Sénégal yu nekk Sénégal nekk bitim réew. ma ci jaaraale sax pour gërëm ki nga xam ni moo ko jiite muy suñu jigéen suñu rek. Adja Samir Seck te jamono jii mi ngi commissariat central nguuru Macky sàll téye ko fa ndax dafa bokk ci ñoo lànk mm. damoon di joxe ci flyers yooyu may wax nag ni que bu ngeen fàttalikoo am na enquête buñ fi ubbi woon waaw comme que mbir mi mu ngi ci loxo yoon mm. nañ ko bàyyi ci loxo yoon mm. waaye sénégalais yi li ñu war a xam mooy fii yëpp Aliou Sall bi nga xam ni mooy rakku président Macky Sall leeralul sénégalais yi lan moo ko dugal ci suñu pétrole ba mbirum ger ñu tudd ko ci ci loo xam ni buñ ko xaymaa toll nañ ci juróom benn milliard juróom benn junni milliard ci suñu alalu réew bu nekkee loolu mënuñu ko leeral nañu xam ni sénégalais yi bépp kaddu goo xam ni nguuru Macky Sall yëkkati na ko fi ci pétrole boobu ak gaz bi kenn du ko gëm ndax dañoo bëgg xam lan moo fa xew euh, yemuñu rek ci pétrole beeg gaz bi or bi nga xam ni moo nekk Kédougou mm. euh, nit ñi ñi ngi koy saytu di ko càmbar pour xam lan dëgg-dëgg mooy njëriñ ban njëriñ la amal réew waa Sénégal. Hmm. suñu jën yi nekk ci géej gi ñuy jëlee ay bateau yu jógee bitim réew ñu ciy napp di yàqal suñu nappkat yi loolu yëpp ñu ngi koy saytu. Hmm. di ko càmbar maanaam mbirum ressources naturelles yi. Hmm. du pétrole dong ak gaz. fer mi ngi ci phosphate mi ngi ci. te loolu yëpp gisaguñu ban njëriñ la amal Sénégal. nguuru Macky mën nañu jàpp ni dafa lajj ci pàcc boobu. d'accord euh, léegi euh, ay enquête bi ñu ubbi fii yaakaar ngeen ni ci ci pàndaw la euh, yëf yi mën na cee leere am ngeen ci yaakaar. waaw am nañ ci yaakaar. ni ko yëf yi mun na leer bu enquête bi jeexee. Hmm. waaye li ñuy am yaakaar yaakaar yëpp ñu ngi taxaw temb di xaar gëmuwuñu nelawuñu tàyyiwuñu ci xeex bi nga xam ni lépp dafa war a leer ci suñu pétrole. ak suñu gaz ak nguuru Macky sàll gi fan lañ ko jëmee euh, euh, xam nañ ni ger am na ci waaye ger boobu ci kan la jógee ñan ñoo ci njëriñoo loolu la ñuy xaar yoon leeral ñu ko te gëm naa ni jàpp naa ni bu ñu yeggee ci cëppaandaw ga Euh, sénégalais yi parce que du xeexu Petro-Tim kese mhm. xeexu waa Sénégal la ndax njëriñu waa Sénégal la njëriñu ndaw ëllëg yi la mhm. loolu gëm nañ ñi bu ñu yeggee ci cappaandaw gi dinañ ci am ndaw du leen incha allah ñu jeexal ak dialogue national bi euh, nu ngeen ko gisee ndax bokk ngeen ci waaw dialogue national bi bokkuñu ci madame Ngom niñ ko gisee mooy caaxaan la liñ ko gisee mooy théâtre la liñ ko gisee mooy ay kuréel la yu fa daje pour seet naka la ñuy lëkkaloowee ak Macky Sall ba ëllëg ñu mun ko dëgëral dooleel ko moom troisième mandat. ah ñu jàpp ni trois waaw loolu ñun noonu lañ ko jàppee. Hmm. te ñu jàpp ni que xëy na mën nañu nax seen bopp waaye mënatuñu nax askan bi askanu Sénégal tey yeewu nañu askanu télé Sénégal. Euh, jumtuwaayu xarale yi bëri nañu ba nga xam ni. dëgg hmm. bi dañ ko dégg te buñ ko déggee dinañ ko xam ñu jàpp ni dialogue national boobu ay waxu naxa saxandang rek moo fay am. looloo tax ñun intéressé wuñu intéressé wul waa Sénégal ñu ngi leen di déglu nag ak seen dialogue national ñoom ñetti bokk ànd seeg Macky Sall ñuy wax rek ni que dialogue national bi moom euh, xaaruñu ci dara lu dul. yëfu tapale. mais yaakaaroon ni buñ ci génnee xëy na processus électoral coow dootu ci am mbirum fichier aussi dootuñu ko dégg bu fekkee dialogue bi euh, surtout wàllu politique mën na saafara loolu euh, même côté social tam ñàkkul ay mbir yoo xam ne xëy na mën nañ ko teg ci table ji waxtaanee ko kon xëy na ponk yooyu buñ ci sukkandikoo mënees naa wax ne dialogue bi am na fu mu amee solo. waaw li ma bëgg wax rek mooy dialogue boobu ak lépp luñ fa mënta génnee. Hmm. njëriñu askanu Sénégal du fa génnee ndax dialogue boobu ndax dialogue boobu pour nax askan bi moo ko lal ndax dialogue boobu pour ñoom seet naka la ñuy nasee ak nocci ba Macky sàll mën a am beneen troisième mandat balaa ñu fay yegg nag ñu wootee benn gouvernement d'union nationale. Hmm. ñoom ci lëbëj yooyu la ñu nekk. waaye askanu Sénégal li leen ñor mooy seen doom yam seen lijaasa nag la ñuy def. pour liggéey. Mm. askanu Sénégal li leen ñor mooy doomu Sénégal bu feebaree nak lay def bay faju askanu Sénégal li leen ñor mooy doomu Sénégal yi naka la ñuy def ba bu ñu xiifee lekk te loolu dégguñu ko ci dialogue national bi dialogue boo xam ni waxuñu fa Aliou sàll naka la def ba ànd seeg Frank Timis luubal suñu juróom benn junni milliards francs CFA dialogue boo xam ni waxuñu fa Guy Marius Sagna mi ñu tooñ tëj ko ci kaso bi nag la ñuy def ba bàyyi ko dialogue national boo xam ni waxuñu fa lenn loo xam ni njëriñu askan bi la waaye liñ fay wax yëpp njëriñu ñoom ñiy politique la waaye du njëriñu askan bi ma leen di xamal ni nag réewu senegal toll na tey ci xalaat ak xel li xel boo xam ni pour njëriñu askan bi la looloo tax boo leen wooyee ci boo seetloo dialogue national bi populaireul hmm. populaireul maanaam sénégalais yi jëluñu ko def ko seen mbir parce que xam nañ ni dialogue national bi jógul pour wax mbirum sénégalais yi. d'accord jërëjëf Cheikh Sadibou Diop ñu ngi lay gërëm bu baax fàttali ni yow yaay coordonnateur euh, mouvement alerte. jërëjëf madame Ngom. jërëjëf ñu amoon be dalal la ci suba ak euh, Rewmi FM. suba ak euh, Rewmi FM. suba ak